asalaamaaleykum bisimila leen seen rubrique Sud Nutrition ñu ngi ànd ak suñu gan docteur Bine Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yi. tey jii ji altine moo ak euh, juróomi fan ci weeru novembre atum 2018 rubrique numéro 73 docteur tey ñu fas yéene waxaa ci moringa wala nebedaay lan mooy moringa wala nebedaay docteur. mo nebedaay benn kii la benn plante la boo xamante ne ni ngi suqeeku Inde waaye euh, kii la garab la boo xam ne mën nañ ko am fu bari dañ koy ji ci zone tropicale yu bari y compris fii Sénégal euh, nebe day ñu ñëpp ñu xam ko ci suñu euh, parce que dañ koy togg ci muum di def euh, cere muum muum boobu ñu koy lekk cere wala fonio donc nebeday lu ñu miin la moo tax ma ñu fas yéene wax ci Nebelay docteur. alors dama waxtaan parce que déjà comme suñu suñu auditeur bi Ibou di ñu doon laaj wax waxu di ñu laaj wàllu Nebelay ñu bari dañ koy laajte parce que Nebelay dañ ko jël boo gisee ñaar juróomi at yi jàll Nebelay loo xam ne la dañ ci dañ ñi ñu bari xalaat nañu non seulement dafa am ay ferñeent yu baree bari yu nekk ci biir mu nekk ñam bu riche riche mais aussi que dafay fecc am na ñu bari ñu defee ne dafay fecc. donc ma xalaat ni euh, te jot na ñu mën a xam lan mooy dëgg bi lan moo dul dëgg euh, parce que quand même nit ñi gëm nañ ko ba nga xam ne dinañu lekk muum dëgg la mais dañuy sax jël ay puudaru nebedaay di ko def ci seeni nen ak di ko def ci yeneen yeneen ñam mu mel ni benn complément alimentaire am na ñeneen ñoo xam ne dañ koy jël def ko infusion di ko di ko naan parce que gëm nañu daal dafa baax ci seen wér-gu-yaram mm-hmm. ma xalaat ni jot na ñu wax nag lan moo nekk ci nebedaay vraiment waaw kon ci wàllu lekk est-ce que am na ay ngañaay yu am ci euh, jëfandikoo nebedaay. waaw alors nebedaay buñ ko analyser euh, gis nañu ni am na ñetti ferñeent yu ciy bari. benn bi mooy protéine boo à ndox ndox mi moo ci gën a bari mais bu ñu jëlee feuille yu nebelaay boobu xob yi gis nañu ni bari na protéine protéine mooy loolu loolu nga xam ne ferñeent boobu nga xam ne dafa nekk ci ay yàpp ginaar jën ak yooyu et puis gis nañu aussi que dafa bari calcium calcium mooy nekk en général moom la ñuy am ci euh, lépp li li aajo ci ci soow euh, ñamu soow et bari na si fer ñun ñëpp xam nañu lan mooy fer alors loolu noonu euh, moo taxoon d'ailleurs am ay ONG wala ay organisation yoo xam ne dañuy toppatoo euh, nit ñi nga xam ne dañu am ay ay carence par exemple ñu dem ci benn dëkk boo xam ne dafa am euh, ay famine wala nit ñi dafa nekk am ay groupe yoo xam ne dañuy am ay carence protéine wala ñuy manqué fer bay am ay anémie dañu daan jël pour dañu gëmoon ne poudre nebedaay boobu bu ñu ko jëlee suy ko ci togg ñooñu dina yokk dina leen yokk ci ferñeent ci protéine dina yokk ci fer également mm-hmm. gëstu ko ba ci biir li ñu gis mooy ne dëgg la am na protéine am na fer am na calcium ci biir na bédaay waaye euh, protéine bi ak fer bi euh, li ci li suñu yaram mën cee absorbé lu néew a néew la c'est-à-dire que loolu la ñuy wax ne ni euh, protéine bi ak fer bi sont peu biodisponibles ça veut dire que suñu yaram dëgg la ma nga ci nam bi mais li ci suñu yaram di absorbé lu tuuti la mm-hmm. te bu ma ko bu ma ci misaal bu ñu jëlee maanaam ci nebedaay ñu jël ci Euh, téeméeru unité wu fer ci téeméeru unité yooyu suñu yaram ñaari unité rek la ciy la ciy absorbé su ko defee mën naa wax clairement que nebedaay euh, jël ko di ko utiliser comme complément alimentaire même ci koo xamante ne dafa am malnutrition amul njariñ bu bari amul njariñ waxatuma nag di ko jël di ko dolli ci lekk koo xamante ne moom mi ngi lekk lekk bu normal mi ngi lekk lu équilibré. ci wàllu faj ndax liñ ciy wax mi ngi ci. alors ci wàllu faj gis euh, naa ne am na sax euh, inde foo xamante ne gëm nañu ni Ndebelay am na ñetti téeméeru euh, kii euh, feebar yu muy fet mm-hmm. euh, mais bu ma recensé tuuti li ñuy wax yëpp ci Ndebelay gis naa ni am na ñoo ñu bari gëm nañu Ndebelay daf leen jox énergie daf leen di am na ñoo xam ne nee nañu Ndebelay daf lay des anti inflammatoire la antibactérien la maanaam dafay tax dafay dooleel suñu système immunitaire am na ñoo xam ne dañuy naan dafay dafay nettoyer suñu système détoxifiant la am na ñu ñu bari ñu gëm ne dafay wàññi suukar ci deretu koo xam ne dafa am mhm. am na ñu gëm dafay euh, wàññi cholestérol am na ñuy wax ne dafa anti cancer am na ñeneen ñoo xamante ne dañ dafay réguler euh, li ñuy wax tension artérielle wala di fait hypertension artérielle mhm. waaye bu ñu gëstoo lii yëpp te pourtant am na ay études yu bari ay gëstu yu bari ñu def ci nebedaay pour seet ndax lu muy faj ak lu mu dul faj mhm. bu ñu ci gëstu yooyu yëpp amul benn étude boo xamante ne ci suñu ñu toll nii wane na ni nebedaay am na lu muy faj loolu dafa amul léegi nag xëy na mi ngi gën a faj dara dañ ko gisagul waaye en tout cas la preuve scientifique existé gu. Hmm. waaw kon yow en tant que diététicienne nutritionniste euh, lan ngay joxe comme recommandation euh, ci ñuy jëfandikoo nebedaay. recommandation bi may jox mooy nebedaay bi ni ñu koy lekkee nii mu nekk si suñu soos ya ak suñu mbuum bi wala leneen loolu c'est très bien ça ça diversifie ñu lekk. mais mënuma recommander euh, mënuma conseiller tegtal nebedaay ngir mu nekk benn ay ay su complément alimentaire wala loo xam ne nañ koy dool donc nit ki mën na ko war na ko dool yi ci li muy lekk déjà pour pour am ci dara parce que amul benn preuve benn euh, preuve scientifique ni nebedaay am na dara lu muy yokk ci ñun donc mënuma conseiller loolu Mhm. page Facebook. alors page Facebook bi mooy su Nutrition ñu leen di ñaax ngeen gën a bari ñëw seet ñu def comme Ibou yi nga xam ne moom ñu suggéré woon thème bi euh, mais aussi li ñu laaj seeni laaj et puis euh, su fekkee li ngeen xam ne ni suñu chronique yëpp ñu ngi ko posté ci page bi pour ñi nga xam ne dañ ko bëgg a déglu wala ñu bëgg ko seetaan. ñi gërëm suñu sponsor Val d'Afrique di la gërëm docteur Bine Cheikh Seck. jërëjëf Ndeye Khady.